ki diriger couple bi moom ala accu bu mattee day dagg. moom moom moom moom moom moom moom dina war a Amadou Ba moom. déet dafa am contentieux démb la woon. démb. maintenant nag puisque émission bi jeex na di fukki minutes yi mat na nañu bàyyi ba live lën bi rek ñu génn yeneen. waaw waaw waaw lën bi waaw mais Adou sa live bi am na doon sa keroog sa live am ma sa yaa a live suba maay ah. très nga nag tekka tekkaaram bi yëpp. live subam bi lay waaj de lay denc lay denc de <laughs> yow nag grand nag dama ne bu ma wax lépp bi <laughs> live subam bi kon nag bu leen ko raté suba treize heures yéen émission bi yëpp dafa doon mën na ma dox man vendredi naa ñëw fii di wax lu bëri <laughs> ah mais yow eh boo fi amee zéro zéro zéro kii vu ab tay ga dee bi lay toog mais yow yow fi ñu toll nii yow yow ba mu mujjee xool yaa ngi woon ci ay vingt yooyu non tey dañ ko remake live bi tey jii booy dañ ko remake. yow dañ ko remake live bi bi. maa ngi ci 5000 tey. dinañ ko tey tey tey tey. ak boo démb maa ngi ci 30000. et. Eh. <laughs> kon baar bi jëm mais xam naa ne xoolaale nga ma man yaa soxor man maa ngi ci ñaata kon. non fi mu ne nii jàpp non naa la. yéen kii euh, nekkoo ci ay 8K 8000. Ah. nee na 5000. 15000. 15000 non tey tey mooy 15000. loolu yow 15000 kañ yokk 15000. ah sama live tey. non non tey live oh. non non <laughs> non c' est normal. non non normal. c' defal ndànk defal ndànk dañuy waxtaan. non c' est sa xol gi bon di. non man sama xol du bon. mais sama live man euh, man samay xiir laa ah, yor. ba ba pare ba pare kii euh, Saliou dafa ko mi nga dafa addus bu subaa euh, wala wala mbaa non suba suba tamit. déedéet soo déedéet ADFM ah, ko ñun ñëpp moom. ah mais bii moom moo ko de. bii moom moo ko de. bii bii moom moo ko de. non non yow bii ñun ñoo toog ñun ñoo toog. yow tiitiri. da nga def live de Aïssatou Diop Fall da nga am sa bés boo xamante yow dong yaay live. Euh, euh, kii Saliou xoolal ma sama man kenn ñaata laa am yow laa reyanteel. man dañ naa remake de tey. mais xale pourquoi ñu remake. leen dañ naa remake. Euh, dugal bi tey ñii bi ñu hmm. gis Adama mu toog. man ma tok gis Aliou Sow tok waaw ah mais loolu tam day jouer Mais mais mais fi tane toll pression. non parce que rien que tay mang ci 15000. dede ñun la. 15000 Tu ñun la. yow ki et et. et. non niveau bi jogna jogna 23 000 23000. ñaata mom bu bu avant bu bu ñaata bu keroog bi. <laughs> mais grand nga. lu tax nga rëggee ko tey. eh 12 pour 5. déedéet eh, déedéet déedéet. 12 pour 5 12 pour 5 ñaata la. 17000 rek la. maa lëppale ba tey yow rëggee ko. waa kii kii 23 23000. remake bi 4500. tey 5000 nga waxoon waaye 4500 plus 12000 ñaata la. man man mun na 4 16500. 16500 ba tey maa lëppale man. xoolal xoolal remake bi tey. remake bi tey ñaata la tey dañ ko remake. Je ko remake mi ngi nii. mais ça, ma sama sama sama sama sama sama live vendredi dernier mais sama ça, 000 ça, xale. 23000 eh, eh, la ça, eh, waaw ça, 23000 ça, yërim ça, ça, ça, mi ngi ça, de. ça, kañ ça, ça, mi ngi ci ça, non non kañ. ça, kay ça, na ça, yërim ça, na ça, Je ça, doon ça, nag. ça, <laughs> ça,

question yee ba ah! ba pare ba pare man sama live maa ëppale auditeurs yi dugg ah, ah waaw dox na laaj leen man maay téye téléphone yi neen bàyyi ma développé ah. yow ba suba nañ xam borom live non yaa fi nekk duuru yaa fi nekk mais sa problème du lan lay wax suba bu ñu man damay déet déet du tax waxul tey <laughs> tey waxul tey waxul tey duuru waxul tey xoolal duuru xoolal loo waxee mu ne la c'est bien <laughs> te waxul ma laay gannaaw <laughs> eh te du te duudu deux heures temps dafa yow déglu ma wax la fii eh, eh deux heures temps dafa gudd man man damay toog RMD man kese quatre vingt dix minutes may live waaw waaw lu ma wax du ma si dellu si waat déedéet yow man may live eh yow yaa ngi fàttali ko yow ba ñuy nekk fee yu daa daan taxaw di dóor moom dom waaw ah yow tamit eh, live temps yoo xarmati bariwul woon. non yow bi xarmati jeex na ay setu xarmati ñun fi ne nii fii rek lañ nekk nekkuñu feneen. Penda daa woote ba bàyyi woon. Penda nee na <laughs> Penda nee na Penda Penda Badji sama rakk yi na ma euh, kii ñu ngi ñu ngi ñu ngi yëkkati Penda Badji nee na. Sénégal set sama rakk jooju. nee na duudu lu tax yow ngay vu ay ay ay vocaalam di vu ay appelam. doo décoche loo ko ko tontu non non penn daal da penn moom su ma ko jëlee mënu ma ko wax déedéet ñu dañ compétition suñu biir non man penn da mënu ma ko wax déedéet penn daal bii la góor tey mënu ko jël mënu du mu ko jël mënu ma ko wax déedéet penn mënu ma ko wax déedéet xamal ñaar ñii ñun ñett ñii dañuy jongante suñu biir ñun nii lañ fi nekk ku def daal ñu xool vie yi. te te te la ma dóor sànq. daggal ay sa dujo ay sa ne ko sama xarit yëpp ngeen baal ma nag vraiment foofu sama xarit yëpp ñëpp ñëpp ñu ngi woote ñëpp SMS. nga dee leen na sànni tey téléphone téléphone baa ñi moo jox ñëw téléphone laa pour sama live. ngeen baal ma na gis naa sama rakk yeeg ñëpp ñu ngi ma naan waroo wax daggal non non Aïssatou moom daf penn ma ne naa la dagg wenn waaye nee na ma du may ko ndox may ko ndox pour mu noppi gis naa léegi sama benn xarit kilifa ba ma de ba ma de ay waay sama ma ngir jëm yonante bi noppi ma koy ji bàyyil wax ji arrêté <laughs> moo ko ma <laughs> baal leen ma vraiment ngeen ngeen ngeen fu ñu toll na paranaasi soulagé woon naa wax naa li a wax te kaay ma wax la te kaay ma wax la nag laay fi bi kenn du ko yàq suba mm. mais nag dafa am ñaari rendez-vous te ko ci bëgg jot mm. live de Doudou Coulibaly demain à 13h. mais rendez-vous bu mag bi. ah vraiment bu mag bi c'est le dimanche. du lundi ah. xëy rek c'est le grand jour. teel xëy. te nag da ngeen di teel xëy. bu dem def sport 9h la ñuy démarrer bu leen def randonnée. bu leen def dara.

ku ko seetaanul de ñun de replay yu ñu. redivision bi bu ci kenn catu. bu ci kenn catu nag dañuy ragal ñee. de kaay ma nag am na sànq ku ma ne du yóbbu dañ coupé courant yi. kaay ma wax la nag kaay ma la nag cat du suba ah? courant du coupé. ah connexion du du du di déglu ma la. sallallahu ah, ala muhammad dama ne duo bi moom moo yëngal Sénégal. non duo bu dañoo garaaw sénégalais yi demain à 13h. ma y' a le duo de, du palais mais il y' a aussi le duo de la de, de la presse. moo xew duo baa ngi nii. moo xew mais ñu boole ci le partenariat avec Bougane Gueye Dany. Bougane la télé du peuple la télé du peuple voilà léegi nag. oui mais quand même ñun ñun ñun. ñun exclusivité bi ñoo ko am. ñun ñoo ko yor. Hmm. direct moom fi Bougane day jël rek lu mu mën a jël. Wow, bërit. bërit ni, rek mais exclusivité bi ñoo ko donc jàppale ko Public SN TV. waaye nag duo bee ca pare ba. waaw la ñuy waxal bu nu kenn yàq suñu xew bu kenn saboté suñuy suñuy bâche ak suñuy tente waaw wax dëgg yàlla bu kenn coupé connexion mais nag ngeen di seetaan bu kenn black out mais di coupure yi aussi waaw coupure parce que chaîne bi dañ koy alimenter à tout moment avez yok abonnement bi parce que l'objectif que nous avons mais ñu donner. parce que Doudou Koulibaly, demain c'est à 13h avec Doudou Colibali les lives de Doudou je leur donne rendez-vous lundi Inch'Allah, à 17h les lives de Adus venir ñëw des document tech génne image Sénégal parce que l'objectif que nous avons c'est de sanctionner ce pouvoir parce que nous serons dans l'ère nous sommes dans l'ère des premières des premières première premier président boo opposition premier tour euh, première prison palais

yow ñu ngi lay xaar suba à 13h. incha allah kon euh, mbokk yi ngeen continuer di cons nag sama live bi ak live bu Addis. Euh, duuru suba ñu ngi lay xaar ñun ñëpp ñun ñun ma ma xam nañu ku ne xam nañu. waaw waaw fi nga toll waaw yaa ci des. waaw fi nga toll léegi nag comme ni ñuy wax rek euh, dimanche mooy rendez-vous bu mag bi ci kàttanu yàlla buñ benn cat dugg nag. waaw am na sama sànq sama xarit bu ma ne war leen woon publicité. ma ne ko ñu ne ñu ragal ñu. Mm. waaw du yóobee daal bien que ñemee ñu contradiction mais du yóobee ca bu ñu yàqal suñu xew mii waaw bu leen coupé benn connexion bu leen bu leen xew gu rëy waaw bu leen yónnee benn affaire ñu saboté ñu bu leen yàqal suñu dara fair play rek fair play voilà dox comme ci kàttanu yàlla suba les live de Doudou ñu ñëpp ñu toog seetaan ko xool est-ce que Doudou dina fi toj waaw voilà moo Doudou fi ñu toog dafa daj boppam ah doo concentré de boppam wax lay bañ wax <laughs> tey sumuy Mm-hmm. non donc donc il de l'information demain. exclusivement de l'information. mbokk yi euh, maa fi jaaroon toj naa fi def naa sama petit xabtalu. def sama petit live. Euh, def sama petit machin léegi nag ñu ma doon wooye mën naa liiraat message ak yooyu euh, voilà mbokk yi maa ngi xaaraat beneen live Modou Bëggëj <laughs> Modou Bëggëj Modou Modou Fall Bëggëj boo boo boo live aatee rek ma ñëwaat waroon non Fall Modou Bëggëj Aïssatou. grand Cheikh Yérim Seck. li ngeen bëggoon. ñu mhm. koy defal. jërëjëf. man nag yow mosuñu jàkkaarloo. dañuy jàkkaarloo jàkkaarloo boo xam ne mosul am. Mhm. muy lan. dimanche. Mhm. bii bii incha allah. public yow. en ak Sen TV. man ak yow. dañuy jàkkaarloo ci